dale nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo coowul pétrole ak gaz bu Sénégal bi nga xam ne ñoo ngi siy tudd Macky Sall ak Aliou Sall ak Frank Timis ci lu jëm ci ay njaaxum ak i njublangi gi loxoor ba léegi ni coow li di wëya yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu congrès de la renaissance démocratique ñoom Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine jalo ak Thierno Alassane Sall ñoom nag daan ñuy porter plainte ki nga xam ne mooy Aliou Sall ak Frank Timis te ñoom nag nee nañu mbir mi danañu dem ba cëppaa ndaw ga ndax nag am na loo xam ne ñoom ñu toog di seetaan yéen kaay gii du l'observateur ñu fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekki moom nag muy xëy di wax lan moo tax ñoom ñu porter plainte ci kanamu doyen de juges ki nga xam ne mooy Aliou Sall ak Franck Timis ci lu jëm ci pétrole ak gaz bu Sénégal ñoom nag la ñu xam xamle nee nañu Sénégalais yi ci boppam mbir mi ñoo war a jóg fajal ko seen bopp yéen kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Barthélémy Dias moom nag la mu xamle nee na dina def kem kàttanam ngir nag bëgg-bëgg bi nga xam ne Ousmane Tanor Dieng bëggoon na ko ngir nag boole njabootu socialiste moom dina ci xar tànk tubayam nee na dina dem seeti ki nga xam ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye seeti nag ki nga xam ne mooy Pape Biram Ndoy mi jiite conseil des charges ak ki nga xam ne mooy doyen El Hadji Mansour Mbaye Barthélémy Dias yéen kay kaay de laas moom nag la mu xam ne nee na njiitu réew mi di Macky Sall war naa maandu ci ki nga xam ne moo war a wuutu Ousmane Tanor ci parti socialiste moom Barthélémy Dias nee na ñoom ay socialiste lañ te nag musuñoo jóge ci parti bii di parti socialiste liste te kenn nag munul génne ak këyit guy firndeel ne dañu leen a dàq ca boobale parti yéen kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Ousmane Sonko muy wax ci lu jëm ci mbirum Guy Marius Sagna la mu xamle nag moom njiitul Pastef nee na Sénégal yi jamono ji ñoo ngi toog di seetaan Macky Sall di jaay doole rek kenn par kenn la Macky Sall def ba jeexal ñëpp li war jamono ji mooy askan bi génn defante ak Macky Sall ndax nag mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam moom Ousmane Sonko ci biir yéen gi mu ñu xamal nañu jëm ci wàllum démocratie contrat ci Sénégal Macky Sall daan na kay naax saayal te jaay doole rek la nekk ci réew mi li nga xamante ni def na ko Guy Marius Sagna tegewul fenn te nag Sénégal yi ñoo warul toog di seetaan scandale bi nga xamante ni nag am na ci lu jëm ci wàllum grâce présidentielle yéen kaay gi du l'Observateur mu ñuy xamal nañu ginnaaw Amadou Wuri Diallo am na juróom-ñeent ci ay nit ñoo xamante ni daan nañ leen di gracier te ñooñu ñëpp maanaam seenub àtte jeexagutoon cour d'appel bu cees moo ko xamle yéen kaay gi de mu ñuy xamal nañu Samba Surabali yoo xam ne waa dikk division des investigations criminelles daat na leen di teg loxo ndax na Samba Boy ñoom nag ci ay kër kilifa rek fa lañ doon dem di fa def musiba di fa jël alal judul jeex ku si mel nag Alia Amoud njiitul société carrosserie de l'automobile ak député bi di Djibril War ak douanier ak professeur université yéen a kaay gi mu ñu xamal naan ñu Samba Boy kay ci kër kilifa yi rek lañ doon dem ba tey ci biir journal bi di Sud mu xëy nag dikkal ñu ci xeex lu jëm ci wàllum drogue yéen a réewum Sénégal waa douane daat nañuy teg loxo lu toll ci euh, juróom benn téeméer ci ay kilo ci ay bés bi yéen kaay gi de mu daan ñuy dikkal ci drogue bi nga xamante ni jàpp nañ ko ci port autonome bu dakaara déglu gi nag tey jii la ñu koy gën di wëyal drogue boobee toll na si junni ak fanweer ak juróom benn ci ay kilo waaye nag ba nu ko jàppee port autonome bu Dakar dafa am ñeneen ñu yolleek woon sàcc sa boobalee drogue jamono ji caabi daane leen féete ginnaaw waaye nag tey lañ leen di gën a déglu ca wàll woowu drogue bi nag niki suba danañu ko taal bi ñu ko xayma na ci cinquante milliards wala lu ko ëpp ci sunu koppara laas yéene kaay mu ñu xamal ñu sa diwaanu Ziguinchor Sadio Mané ak Krépin Diatta ñoom nag daan nañ di teeru comme ni ñuy teeroo buura Eumeu Sène ci combat bi dox digganteem ak Modou Lo la mu xam ne na combat bi dina saf sàpp te bu yàggee du arrangé Modou Lo bu gaawee du ko arrangé moom Eumeu Sène la mu xamle nee na jamono jii daal pare na ngir jàmmarloo ak Modou Lo yéen kaay gi de Les Échos dikkal ñu ci ak giraawale ñu benn responsable école privée ak kenn koo xam ne ma ngi ci daayira Moustarchidine wala Moustarchidaty ñoom nag dañu leen a teg loxo ci lu jëm ci yegg ci benn xale boo xam ne ay atam fukki at ak ñett rek lay tollool